salaamaaleykum salaamaaleykum ngi jéggalu de mbokk yi ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci dog-dog bi amoon ci live bi sànq xam nga man ñaare Facebook ñoom léegi dañoo metti lool lool dañ maa sonal ba dañ may restreindre rek lu nañu moom daal xam naa ne metti na daal xam naa ne daal Facebook daal metti na rek dañ maa restreindre lu ne pexe bu ne maa ngi koy jéem wut pour man di continuer liggéey bi ñuy def nii waaye yombul daal ak waa Facebook kon ñu xaar tuuti xam naa gaa yi agsi rek comme ça kenn bañ a wuute li ñuy wax. ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax euh, doon wax rek ne ku agsi rek na ko partage ba mbokk yi mën a mbokk yu mën a mën a mën a mën a dugg mbokk yi mën a dugg ñu mën a continuer waxtaan wi wéyal ko ci loo xam ne daf ñuy jariñ ndax it nag day baax léeg-léeg bu coow amee ñu xool la cay dëgg ñu indi ci suñu xalaat ak suñu xam-xam ñu nit ndax coow li am ci diggante sew ma Diagne professeur li mu wax am ñu jóg di ko ŋàññi te wax ji bi ma ko dégluwaatee ci dëgg-dëgg suma lenn loo xam ne mën nañ ko cee ŋàññi lenn lenn xëy na am na ñoo xam ne ñoom lañ leen gëmloo ak la ñu jàpp wax ñu wax leen ko ci seeni sëriñ ñoom jàpp nañ ne loola mooy li am muy benn mythologie benn histoire bu rafet bu ay géwale ki ay coggu uh, defar ba mu rafet ne seen sëriñ léeg ak laag laag laag loolu dafa wuutee lu ci bari ak réalité yi loolu nag bu amee dañuy dal bañ ko def ci pass pass bañ ko def ci passion bañ ko def ci xërëng-xërëng ak ndof-ndof lu mais ñu def ko cim xel da xam-xam du dugg ci bop ko dof du dugg ci bop ko am ay yeg yeg borom xam-xam yépp nanguy nañ ne boy sàkku xam-xam da nga wara li defar sa bop préparer sa bop ba lepp luy pas pass manam pas pass pass mais lepp luy passion la bëgg wax passion ay yeg yeg ay ay émotion ay di daanu ay nek ay dof ay di xataraayu ay di mer loolu képp ku ko taqoo mënoo am xam-xam donc yooyu da ko war a liggéey ci sa bopp préparer sa bopp nettoyer sa bopp ba sa xol beeg yooyu yëg yëg yëg li leen naqari li leen nekk naqari ak li neex doo ko mën a xam sa bopp bokk nag li tax sax la tasawuf tasawuf gii ngeen dugg yéen ba nekk ci ay taalibe li ko taxoon a jëkk mooy defar ay nit defar leen ci wàllu yar ak seen bakkan ba nit bu la doon saaga sax da ngay ree su la nit nee sa sëriñ bi léegi léegi lii dangay ngay woyof toll bokk na ci taaliba sëriñ Tuubaa yu njëkk yi nga xam daf leen tàggat ñoo ngi dañoo amoon sago nekk ay nit ñu pacifique mais dof yi léegi nga xam ne ay dóorkatu marto lañu dañuy nekk télé bi bëgg a dund ci ndoddug sëriñ Tuubaa lañ bëgg toog di ci am ci seen i yeeg am ci seen i ak seen i oto seen i taax ci yooyu la ñuy bëgg a dund ci di ci ci ci mouridisme bi dañ ci bëgg dund c'est leur c'est leur dañ ciy fen di wax lu leen neex su kenn génnee wax dëgg ñu jóg attaqué ko au nom de ñoom dañu gëm sëñ bi au nom de li ñuy wax amul au nom de soo waxee sëñ da ngaa bañ sëriñ Touba. sëriñ Touba ki koy bañ mooy ki xamul ki ràññeewul dof ab dof moo koy bañ ku xamul dara kookoo koy bañ waaw sëriñ Touba ndegam waxuma sëriñ Touba bi nga xam ne jullit la defal fi mu jaar ci wàllu dundam ci wàllu jaamu yàllaam fi mu jaar. waxuma la sëriñ Touba mi nga xam ne jullit la ñun ñuy ay jullit de waaye ñun dañoo bëgg ñeneen sax ñoo xam ne duñu ay jullit ci seen jaar-jaar kese Sëriñ Tuubaa même bu nekkul woon jullit dañ ko war a bëgg même bu gëm woon yàlla ya jaar-jaaram képp dafa dafa tax ñu bëgg ndax bëgg nañu ay nit ci àdduna bi ñoo xam ne ñoom duñu sax ay jullit waaye seen jaar-jaar ak seen taxawaay ak seen dignité ak seen humanité dañ leen a ñooñu dañ leen a bëgg te nekkuñu ay jullit Sëriñ Tuubaa moom jaar fa ñu jaar ñoom ba noppi nekk jullit boole ci kooku kan moo koy bañ mais ñoo xam na ay dóorkat lañ nekk ci biir mu di bëgg ci dund chaque fois su nit waxee benn wax wax ko dans la généralité yamale ko ci tarixa yépp boo xool boo seetloo dof yi nekk ci biir mu murit rek ñooy génn di kaas dof yi ak dóorkatu marto yi ñoom rek ñoo génn mais Cheikh Omar Diagne li mu wax yamale ko Serigne Touba kilifa diine yi fi nekkoon ci jamono Touba bi ñëpp ñëpp la wax du Serigne Touba kese fi nekkoon ci alaaji Malick mi ngi foon maam Cheikh Ibrahima Niass ngi fi nekkoon ñu baree ngi foon ñoom ñëpp la boole maasa ne leen bi fi tubaab bi nekkee bu fi tubaab bi ne weer yi feeñ na gis nañ ko fii wala fay su fekkee woor la dañuy woor su fekkee korité la dañuy korité su fekkee tabaski dañ koy def lan moo tax yéen ceet de murite gi ay mbay gay si laaki ay euh, nu nu mu tudd dof boobu euh, naan xawma lan man euh, dem géej gi donc am naa ci étage am ci am ci toolu xaal ak xawma lan lan gis gis nga dóorkat yi waa ji nekk télé bi xawma naka mbaay nee man nettali man déwuma fenn fekkiwu ma waaye nettali dem géej gi doongu man am naa ci tabax am taax mu rëy am ci toolu xaal bu rëy waaw mat bien la ci wut daf ci wut lu mu dundee nettali dong kañ ngeen ni yeewu yéen taalibe yi ngeen nekk ay nit bàyyi saaga ak xaste ak ku wax ngeen ne dafa bañ sëriñ bi ñun dañoo bëgg ay gàndi bëgg ay Mandela bëgg ay tom ay ay ay Martin Luther King bëgg ay ñeen ñeen ñoo xam ne ñooñu ñu sax ay jullit mais seen jaar-jaar képp ak seen dignité humaine dafa tax ñu bëgg ko waxuntuma laa nga Serigne Touba jaar fu raw foofa ba noppi def ci diina gi loo xam ne macha allah kooku kam noo koy bañ mais yéen pour bëgg am lu ngeen di dox am lu ngeen di suuxat ak seen ay intérêt matériel bopp koom-koom bi ngeen bëgg a naxee taalibe yi di ko lekk ci seen loos ci turu Serigne Touba bu nit waxee dara da ngeen koy jël dóor ko ci kaw Serigne Touba da koo bañ pour mën a doxal seen système yéen mais du jàll ñun ngeen fiy fekk Cheikh Omar Diagne mi ngeen koy def moo leen gën a xam Serigne Touba fuuf gën leen a gëm Serigne Touba gën leen a jàng Serigne Touba fuuf gën leen dëggu du seen morom dalli dalli Cheikh Omar Diagne moo leen man yéen ñett ñi ma limee ceeb du mu teg Mbaye Guèye xaw ma naka Mame Mbaye ak yéen ñëpp dall Omar Diagne leen gën moo leen gën a jege Serigne Touba moo leen gën a xam seen yooyu nag dafa yomb ay dangaa bañ mag ñi dangaa bañ Serigne Touba yéen ku wax dëgg rek ngeen dafa bañ mag ñi ku wax dëgg daal ngeen bañ gëstuwu leen jàngu leen xamu leen dara bëgg di dund ci seenu làmmiñ fonto nit ñi Mbep, mbéppi guddeeg bëccëg ça ne passera pas cette dictature xam nga de ces de de cette meute inculte ne passera pas c'est pas possible Mais ne dëkk bi xam-xam amu fi Mais na Sénégal ay borom xam-xam amuñu fi mais c'est incroyable quand même Mais na Sénégal Serigne Touba musul bind bàyyi fi Mais na Serigne Touba euh, mais na Alaaji Malik bindul bàyyi fi mais où sont les représentants de Aladji Malik Où sont les représentants de Cheikh Ahmadou Bamba Où sont les représentants de Cheikh Ibrahima Niass ana ñu ñu pourquoi mënuñu ko teg ci ko table nit ñi lire ko mais ay dof yoo ne ils sont pas assermentés ils n'ont mandat de personne c'est eux qui parlent au nom des confréries Mourid, Tiyan et tout ça Cheikh Oumar Diagne li mu wax génne wu ci Tidiane génne wu ci Laayeen génne wu ci Xaadir génne wu ci murid mag ñi fi nekkoon ñëpp la boole de waxandoon ne bu tubaab bi ne weer yi feeñu dañuy àndandoo ñoom ñëpp wori wori tabaski la montre tax yéen ngeen jóg yéen yi moo ma wax ji moma ma sen bop c'est tout le temps comme ça vous les yéen sa du ngeen ay murit yéen ñi wax ay maam go ay ay ay mam maam mbaay xaw ma ceddoo ay mbay ay vous n'êtes pas des murit vous vous n'avez rien de murit a rien vous êtes impulsif violent vous êtes des affabulateurs vous êtes des menteurs vous êtes des des des opportunistes vous voulez vivre du mouridisme contrairement ak mag ñi àndoon Serigne Touba nga xam ne dañ doon dundal yoonu murit mais yéen da ngeen di dundee yoonu murit c'est ça la vérité motax luñ ci wax rek ngeen ci taxaw bëgg ci buzz ko defé ñaan wuy talibé yi nga xam ñom ñoom xamuñu dara c'est des novices xamuñu dara dañu jékki gis Serigne Touba dañu top ci ginaawam mais xamuñu ku Serigne Touba Serigne Touba noko nga xëy jëriñu Serigne Touba ta xamoo ku Serigne Touba ta xam Serigne Touba moy nga xam sa sharia xam sa fiqh xam say farata ak say sunna loolu moy xam Serigne Touba xam Serigne Touba du ay mbëkk ki daan ko joxe addiya de xam sa Serigne Touba mooy nga xam sa feq xam say farata xam say sunna xam ne yàlla dëggal am tawxiid bu wér loolu mooy xam Serigne Touba leneen loo xam Serigne Touba te lii nekku ci ñàkk nga ko xamoo Serigne Touba da ngay jaar fii mu jaar fee yoonam nekkul ci la ngay def ça l'engage pas yow la engagé bu yow léegi koy layee sa yéen yéen a di bëgg rey nit ñi bu Cheikh Oumar Diagne génnee ngeen saaga ko su ma génnee wax ngeen saaga ma li ñuy wax mi ngi ci ay archive ñu bind ko lan ngeen bëgg a wedde Cheikh Oumar Diagne que tubaab bi amuñu woon autorité ci mag ñi loolu ngeen bëgg a weddi mais loolu indi leen indi leen indi leen indi leen seen lay ngeen teg ko ci ko taabal ji wax ak wax indi leen yéen seen i lay ñu indi suñu archive teg tubaab bi bi mu fi nekkee dafa amoon autorité ci ñëpp tout le monde laa la wax tout le monde y compris Alaaji Malik Serigne Touba ñoom ñëpp tubaab bi dafa amoon autorité ci ñoom gouverneur yi fi nekkoon moo nekkoon le chef suprême ñëpp di obéir ci ay ordre am la ñuy def lu mu ne lii du fi am loolu du fi loolu mooy li am lu mu ne lii moo fi am lii moo fi am tubaab bi ku mas a dem màkk ci bi fi tubaab bi nekkee tubaab bi moo lay autorisé nga dem màkk bu la autorisé wul doo dem màkk ñenn ñi ñu ngi nekkoon en résidence surveillée bala ngay génne da ngay am autorisation tubaab ba lay ku ci bëgg a tabax juma bu la tubaab bi joxul autorisation doo ko tabax est que li may wax leer na mais yéen di yéen yéen yéen a fi nekk tey ñeme tubaab yéen ñi wax ni yéen yéen a ñeme tubaab bi billahi wallahi talaahi ku yeewaatoon seen maam yeeg seen sëriñ yi ne leen tey seen i sët ñi ngi fi di yàq tubaab yi lii dañ naan mënut a nekk ñoom xam nañ ñan ñoom ñoo fi nekk tey am indépendance di wax mu yomb trop mais bi fi gouverneur di nekk tubaab fii dem leen ngeen laaj seen maam dund ba léegi ngeen laaj leen wax mooy tubaab de waaye dàll tubaab rek bu masaan rëcc ba dugg ci ab village dàll tubaab dàll bi rek waa village ba ñëpp ay fatu tubaab yi ñoom caaxaan nañu woon de dañuy rayaate ñoom am ay sox ak ay kano da ngay lakk ñu dagg sa bopp bi samp ko yéen a fi nekk léegi di wax parce que léegi Sénégal neex na léegi léegi kenn lekkatul nëxal ak rakkal léegi ceeb ngeen di dànk di lekk c'est très bien ngeen di wax ku wax ngeen saaga ko di ko nëpp nëppal mais tubaab bi ñu fi nekkee kenn day yëngu te boobu la diine ji gënoon a set boobu la mag ñi gënoon a dëggu boobu la gënoon a mën a jaamu yàlla Sëriñ Tuubaa ak Alaaji Maalik ñi ngeen wax ni seen diine jooju moo gën suñu diine tey ji nekk ci télé bi di fen ubbi seen seen YouTube bëgg ci koppar di fen rek waxu ñaan ñoo ñoo ñoo ñun ñooy défendre yoonu Cheikh Ahmad Bamba ñun ñooy kërike feni neen lu ñu dundee donc la ñu wut ngeen bëgg ñu bàyyi leen ngeen di wax lu ngeen ba traverser l'histoire de ce pays yàq histoire dëgg-dëgg réew mi histoire bi ñun génne ko parce que dafa am ku ñuy xarab déedéet histoire bi saa yu ñu ko yëgatee rek c'est parce que dafa am lu ñu bëgg a tabax réew mi mënuñu koo tabax ci réew muy dox ëllëg réew mu tegu ci dëgg lu dul léegi la ñu dellu ci suñu démb jukki ci la nga xam ne moom moo fi amoon ñu man ci sukkandiku wala ñu mën koo xool ne lii kat moo fi amoon démb nañ ko dàq wala lii moo fi amoon démb baax na nañu fexe ba sukkandiku ci li xewoon démb sukkandiku pour tabax suñu suba pour tabax réew mi rek a tax ñuy wax nekk luñ fi pour yëkkati kenn ak wàññi kenn gis nga Serigne Touba am la mu liggéeyal yàlla loolu moom keroog bi mu génnee àdduna la bunt ba tëju maanaam jëfam li mu defal yàlla moom Sëriñ Tuubaa kenn mënatu ko yokk kenn mënatu ko wàññi la ko yàlla àttee suba moom Sëriñ Tuubaa jëf na ko ci dundam keroog ba yàlla jëlee ruuxam keroog la jëf ja taxaw amatul lu ci dolli ko amatul lu ci wàññeeku ay jëfam nga ca bar sàq taxaw di ko xaar nga bëgg ko du tax loolu wàññeeku nga bañ ko du tax du la wàññeeku la muy jëf jëf na ko ba noppi alaaji Malik kazalik il faut ngeen xam loolu nekk fi yéen naan da ngeen a bëgg sëñ Tuubaa ba muy dund xam na li ko war moom xam na li ko yàlla xaare lam ca war a def def na ko alaaji Malik noonu maam Limaamu Laay noonu Cheikh Ibrahima Niass ñooñu kenn ku ci nekk ñoom xam nañ ne seen jaamu yàlla seen responsabilité bopp la amu ci kenn kuy dem barzaq bàyyi fi nit mu di la jaamul yàlla jaamu yàlla kenn du ko defal kenn il faut ngeen xam loolu li ngeen def yëpp deful leen ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa kenn mënu koo defal dara lu ngeen fi def na sëñ Tuubaa ngeen ko defal da ngeen seen bopp nit amul lu koy defal yàlla la ñuy defal moom la ñuy jaamu moom moo ñu sant ñu di ko jaamu man yow alaaji Malick ak maam Ibrahima Niass ak Serigne Touba ñun ñëpp ñoo ci yem yàlla la ñuy jaamu kenn ku ci nekk sa jaamu yàlla moo la war tànk yaa ngi dund boo demee ba faatu nag jaamu yàlla ga fa lay taxawee amatul genn jaamu yàlla gu la nit di defal ci sa ginnaaw jaamu yàlla kenn julli kenn du ko defal kenn woor kenn du ko defal kenn asaka kenn du ko génne kenn dem màkk kenn du ko defal kenn il faut ngeen xam loolu responsabilité individuelle ku nekk ku nekk yaa ko defa mais jaayil gi ngeen doon ñàkk jàng ngeen xam ne ak cogg gi ngeen tàmm ci kër buur yi njëkk ya ba buur ya toj tubaab bi toj seen nguur ya ngeen daw dugg ci nekk seen ëtt yi bëgg yàq moo tax sëriñ ñi ko xam dëgg dëgg dëgg kenn daaw ko jege coow lee fi bari ku nekk di wax naan sëriñ Tuubaa nettali na diw sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa lekk sëriñ Tuubaa amul jot du fréquente du toog ci ab ëtt ak jataay yéen yéen a fi nekk di fen rek ba sëriñ Tuubaa ne mag ma di duul feni kese ngeen jéggal ma sëriñ tubaa amul jot toog nettali kenn Sëñ Tuubaa li mu amoon ci temps doyu ci li mu war a bind li mu war a gëstu li mu war a jaamu yàlla foo ko fekk danaan tëju ci la tubaab yi bind ci ay archive du nit ku ñuy jege du nit ku ñuy waxtaanal Sëñ Tuubaa du waxtaan xamul luy waxtaan ngeen nekk fii di kàcc guddeeg bëccëg lu ne ngeen ci loolu sax que lan dof yi bari ci boo ko waxee àdd yi ngeen lekk tabax ci seen i étage am ci tool yi xaal kon waa na man am naa am naa ci ñaari étage am xaal bu rëy mais bien sûr parce que ci kàcc rek nga dëkk dof yi topp la jox sam xaalis ngeen ne kenn du ko fi waxe ngeen ne kenn du ko fi waxe Cheikh Omar Diagne génn wax ju ne pëng bu weeri masaane feeñ tubaab bee koy annoncer fu mu mënti feeñ dans l'AOF dañ koy annoncer mieux tubaab bi en 1916 dañu créer ben conseil consultatif musulman de l'Afrique occidentale xam nga ñun Sénégal mënuñoo am kurel bo xam ne ñoo ko ñun Sénégal képp laax de mun mënuñoo am kuréel bu ñëpp bokk tarixa yëpp nekk ci ñuy yëkkateendoo tegandoo weer yi feeñ nañu war mënuñu ko am ñun Sénégal tubaab bi bi mu fi nekkee taxawal na comité boo xam ne waxuma Sénégal rek de mais Afrique de l'Ouest gépp Mauritanie Niger Sénégal Guinée Niger Mali ñoom ñëpp dañ leen a boole boromi xam-xam ya fa nekk sëriñ ya fa nekk dañ leen a boole takk leen ñoom ñëpp dugal leen ci biir conseil consultatif ñuy waxtaan ak di seendoo di amandoo di bokkandoo di waxtaan di yëkkateendoo di tegandoo tubaab bee ko taxawal loolu tey Macky Sall mënu ko ñun ñi mënuñu ko tubaab bi moom mënoon na ko boole woon na El Hadj Malick ak Serigne Touba ñoom ñaar la tànn ci Sénégal boo demee Mauritanie ñi ngi tànn ku ñuy wax Cheikh Sidiya mu dëkkoon ci but Boutlimie moom nañ tànn Mauritanie tànn Cheikh Sadbou ñu dëkkoon a Xuruf à Xurufa tan Amadou Mokhtar mi dekon a Bogué ñom am nañ trois représentants archive la yoon ni di ko nga dem Niger ñu tan ku ñuy wax Aboul Abbas Ahmad Ahmad Baba di khadi bu de de Tombouctou au Niger tan ku ñuy wax Mohamed Ben souyuti de professeur bu à la madrasa de Tombouctou parce que ñom au Niger moy Mali gi lañ tuddee au Niger à l'époque hein Tanda fa ku ñu wax mohammed Ould Sidi Ousmane ah nga ñew senegal ñu tan El Hadj malik si a tiawon Serigne Ahmadou Bamba a Diourbel ci conseil bobu la wax da nga xamne c'est un conseil supérieur islamique ah Tanda nañu ko ñu wax ay Nina di khadi bu mag a Saint-Louis jël nañ ko ci momit jël ku ñu wax Aline Diagne khadi bu mag la won a Dakar Fodé de Kaba Fodé Kaba Fodé Kajalu Fodé Kajalu jël nañ ko moom it la nekkoon Sédhiou ñu boole ko ci ah Guinée ñu jël ku ñuy wax Karamoko Dale ah jël Thierno Aliou Bouba Diagne à Labé toujours ci gine jël Alpha Mamadou Thiam à Dinguiraye Guinée dugal ko ci ci biir commune bi jël Fodé Ansoumana Kindia bu nekkoon Kindia moom ñu dugal ko ci. jël karama ko Amadou Camara ah bu Kanka ñu duggal ko ci Côte d'Ivoire ñu jël imam imam naka imam manji Timité bu nekkoon dëkk bu ñu wax Bunduku ci Côte d'Ivoire jël imam euh, paraiso, bu nekk Porto Novo a a a hmm jël Malamine Malamine xon nag nuñ ko Malamine Malamine get ma Malamine Géttima à Zinder mooy Zinder bi Cheikh Oumar Diagne jox Malamine Géttima à Zinder Niger Zinder bi mu noonu nee na bu weeru masaana feeñ Zinder Zinder ca Niger gis nga Zinder boobu Malamine bi moo fa nekkoon kon yéen yéen tubaab bi ñoo taxawal bi conseil signé à Dakar le 28 avril 1916 ampliation yaa da koy yónnee Côte d'Ivoire le commandant général le gouverneur général de l'Afrique occidentale française commandeur de la Légion d'honneur décision le 28 avril 1916 décision portant désignation des membres indigènes du comité consultatif des affaires musulmanes vu l'arrêté du 28 avril 1916 instituant un comité consultatif des affaires musulmanes, décide, deux points, article 1er, sont désignés pour faire partie donc, du comité consultatif des affaires musulmanes de l'Afrique occidentale française les notables musulmans dont les noms suivent, deux points, nous commençons à citer. waaw ku def lii <laughs> Li ñun tubaab bi ko defoon de mag ñi moom ba ñu fi nekk tubaab bi utul nañu kurel bo xam dañ fay diiso ñoom borom xam-xam fa te yamul dañ ko yeb ci Afrique de l'Ouest yeb muy dox kon day deugal li Cheikh amadou wax te tubaab buñu bu ñu wax ne weer yu feeñ mag ñi daaw ñu werante wax ñom seen fekk niñ déggé fekk ak imam Malik bi nga xamna ñom ay malikit la duñ ci werante ça passe lolu ay détail la mais tay la ñu doon naan sama sëriñ lay xana bu tuba wote du duma wari ah bu tuba waxul du ma wari ah yéen ban diine ngeen yore yéen fu ngeen jóge yéen lan ngeen jàng ci El malik lan ngeen jàng ci Cheikh Ahmad Bamba lan ngeen tok ci télé yi dañuy bëgg fonto Cheikh Omar Diagne di wax ngeen ni koy saga

Tchaglil, témoignage pour je vais te mettre à guette Ardo parce qu'ici il n'y a pas de maraboutage, on n'a pas besoin de toi. On a besoin de construire ce pays, donc on n'a pas besoin de, de maraboutage. Je vais te bloquer comme ça, là, tu reviens pas. D'accord, je suis désolé. bu vous ñu tax wax archive yi nga xam ne ko classé sénégalais yi classé ko ñu ne buñ ko kenn génne classé top secret bu ci amé lu rëcc génn ngeen yuuxu yeen bu lepp génne ngeen tak seen i seen tubay ngeen tekki def taatu ñen ci mbedd yi bis bu archive bis bu ko déclassifier ba génn ko seen taatu ñen ngeen def parce que li ngeen ak li am lu ci bari bokut, lu ci bari dañ ay géewale ko netali parce que voilà daanu jël di wax lu la neex sab sëriñ taggo ko yëkëti ko ba lolu mom ba legi jogu fi bus bu nek tele yi boo déglu kenn ku nan sa ba serigne mo bind yalla ak ba yalla di ba sama waxi dof yo xamne yo, yooyu waaw bu wax way bi leen ñu taxaw wax kon ñoo rek ay courrier yii El Hadj Malick ko bind yii Serigne Touba ko bind ay lettres yu ñu bind tubaab yi ñoom yii Cheikh Ibrahima Fall ko bind. lettres yooyu bu ñu leen ko liiraloon tey ji ngeen ne mënta ne lañ cay wax ñoom ay archives yoo xam ne seen sëriñ si ngeen yaakaar nañ ñoom dégg nga maam kenn amul autorité ci ñoom tubaab bi dañoo amoon autorité ci ñoom naka ngeen mën a yéen naka ngeen mën a taxawee. bëgg a weddi na tubaab bi amul autorité ki Serigne Touba naka ngeen bëgg a weddee loolu naka ngeen ko a weddee 1895 ba 1927 Serigne Touba nekk ki loxo tubaab bi ngeen bëgg taxaw ne Serigne Touba ci coobare boppam la nekkoon tubaab bi mënulu ko dara amul autorité ci moom te tubaab bi yëkkati ko yóbbu Gabon 1895 ba 1902 mu dellu si Dakar 1902 1903 coow amaat ñu yëkkatiwaat ko 1903 nar ko yóbbu en Guyane française fa ñu yóbbu woon. Dreyfus, l'affaire Dreyfus. dans des prisons ils mettent en Guyane Cheikh Sidiya Baba ne déedéet vous gouverneur de la na ko indil ma ko fii bu ko yóbbu Guyane dans mon koo ñaan gouverneur def ci réunion ak ay ñim ko seexal ne Cheikh Sidiya Baba kat suñu xarit la te suñu politique contre ko kuy collaborer ak ñun la koo xam ne ci dëgg-dëgg amuñu ak moom benn jafe-jafe comme ñaan nañu njekk na nañ ko indil Serigne Touba mi nga xam ne taalibeem la ci niñ bindee tubaab bi damay nettali nag ne ko indil taalibeem bii moom Serigne Touba indi nañ ko ko indil bind kon nañ accéder ci demande nañ ko d'accord loolu nañ jël Serigne Touba au ñu ko yóbbu Guyane nañ ko yóbbu kon Mauritanie ñu jël ko 1903 ba 1907 ñu yóbbu ko Mauritanie auprès de Cheikh Sidiye Baye Cheikh Sidiye Baye di ko ànd ak moom ñu di ko jangal ci yenn xam-xam yi ak it léeg-léeg tukki ci biir Mauritanie def ay xayma am ñu initiative and ak mom moom Sëriñ Tuubaa ñu nek ay xarit ñu ñuy àndandoo ba jëmmi jamono bo xamne ñu bari ci mag ñi fii ñu ngi ak archive yi Cheikh Ibra Fall mam Cheikh Anta Mbacké ñu ci bari gis na seen courrier yu ñu bind tubaab bi diko di sakku ci mom pour mu dellu Sëriñ Tuubaa diko ñaan waxuma la waxuma la diko ko exi dañu doon ñaan tubaab bi diko ñaan diko supplier pour tubaab bi delloo si bi bañ demee ba tubaab bi def seen ay enquête wax ak Cheikh Sidiya ba Cheikh Sidiya d'accord na léegi ca dëgg-dëgg gis naa ne daal moom sëñ bi daal moom nitu jàmm la ni ma dëkkee ak moom daal ci 1903 ba 1907 kii daal du koy indi fitna ñu waxtaan ci tubaab bi tubaab bi nag kon nañ ko dellu si ji lañ koy indiwaat 1907 ñu jëlee ko Mauritanie indi ko avant mu ñëw ñu daggal ko ab tokkoor ca Ceyeen fo xamne da dana jégg ndox am nay tol yëpp toba bi natt ko préparer ko parce que bëgguñu ko tek fu muy son ñu na fépp fuñ ko tek na nek fo xamne dana fa am dëkk way bu mucc ayib waye dana am tok tokor bo xamne dana fa mëna bay pour am lu mu dundé buñ ko tek fo xamne day am jafe-jafe nañ ko mettre en résidence surveillée mais nañ ko tek nag ci ay conditions yu digne ñu daggal ko fofu seen ab tokor bu dëkk fa 1907 ba 1912 mu difa bay difa fa dund taalibe yu bari diko fa fekk ba jëmmi jamono tubaab bi jëlee ko ca yéen ca Jolof yóbbu ko indi ko Njaareem 1912 ba ni mu génnee àdduna wuy ji borom ba 1927 demul tegul tegul tànkam Touba. ku leen taxawal ne leen kii amoon na autorité Serigne tubaa yéen ngeen boo ko weddi fan ngeen koy teg fan yéen taalibe yi histoire histoire la que mu neex leen mu naqari la loolu mooy li am loolu la yàlla dogal dañ koy nangu jéem ci sukkandiku nag léegi taxaw nag pour tabax suñu réew. xool tubaab bi ni mu amee woon autorité ak ni mu ñëwee noot mag ñi noot ñëpp te lépp nekk faiblesse ñun ñu xool loolu lan lañ ci jàng ba mën a am force ba kenn dootuñu noot ñun ñi fi des ak ñi ñëw suba loolu mooy jàng bi biñ ci war a jàng mais du ay daanoo ki ay ay euh, yuuxu mbëkk poto yi këri ko yi dañ ci war a jàng lan lañ ci war a jàng ñun pour am liñ ci war a jàng man pour man mooy dañoo war a utu doole àndandoo takku am xam-xam am science uti économie uti doole uti ay sox ndax loolu tubaab bi defu ko lu dul ci doole la defee dafa am doole am ay sox ay maq doom boo yoree ay jaase ki fetal mu yor ay boo yoree ay jaasi moom mu yor fas am doole puissance économique dong la ko tubaab bi mën a def sëñ Tuubaa loolu ndax booba Sénégal bu ñu àndoon am doole tubaab na doole mën na mooy jàng bi ñu ci war a jàng kon bu ñu demee ba jël suñu mag ñi am tubaab ci doole dong lañ ko teg aku fit waaye waaye loolu ñun nañ ko uti nañ uti fit uti doole Cheikh Oumar Diagne loolu lay woote au que nag ñun murit beeg tijaan beeg xaadir beeg laayeen bi au lieu que ñu jàng ci loolu au lieu ñu jàng ci loolu <coughs> au lieu ñu jàng ci loolu ñun jàng ci nag suñu mag ñi kat macha allah suñu mag ñi amuñu lu ñu leen reproché la ñu waroon def ci seen jamono la def nañ ko ca la ñu man seen kéem kàttan bu fekkee ci wàllu yàlla la seeni jëf xam nañ ko seen i bind gis nañ waaye mag ñi du ñu ay maasum du ñu nit ñoo xam ne dañoo mat seen lépp a mat am na foo xam ne ay faiblesse la ci ñoom mooy lan mooy amuñu won doole amuñu won armée amuñu won am réew mu taxaw mu dëkk mo xamne ne mën naa jaamaaloog tubaab bi lol faiblesse la il faut l'avouer mag ñi fi nekkoon bax nañu bax gep waye amuñu won doole yi mën a jaamaaloog bi amuñu ko dañu subir la colonisation dañ ko subir ñom lu tax ñu subir ko benn bi c'est c'est lié à leur philosophie ay tasawuf ni tasawuf sunna àdduna jëru ko nit du dee comme ni ko sëñ bi waxé ko tay nit da ngay dugg safara ak yoy donc xex baalu tour tuur deret ak yoy ñu lamu bay bàyyi bu mu top tool yooyu moom tubaab moom day xex philosophie bi mag ñi amoon du philosophie xeex philosophie nangu la bañ a deret ndax ñoo ñu ëpp doole kon nañu subir mag ñëpp dañu subir El Hadj Omar moo ci xeex ma ba Jaxu Ba Amadou Cheikhou Mamadou Lamine Dramé ñoom ñoo xeex ñoom ñoom nekk ay guerrier nekk ay jihadistes ñoom dañu jihaad ñoom mais ñeneen mag ñi ñoom xëy na jihaadu nafsu lañ def ñoom xeexuñu loolu mooy seen choix ñun léegi ñun histoire bii may nettali defuma ko pour yëkkati ki wàcce kee ñun léegi lan moo war a nekk suñ jàngat ñun ñi fi nekk tey jii di gaño man ñun lan moo war a nekk suñ taxawaay ñun loolu mooy question bi histoire bi suñ koy nettali c'est parce que dañ war a jukki dañ ci a jàng xool ñun luñ ciy jukki pour mën a tabax suñu tey ak suñu suba ak suñu doom yi ñëw loolu lañu war a jàng ci histoire dafa am solo mais réew mi kenn mënu fi nettali histoire parce que ay passionné ay dof yoo xam ne duñu bàyyi mukk ñu tabax suñu àdduna ci jàngat suñu démb loo fi yëkkati ñu ne da ngaa bañ diw mag bi ngay xeex diwlee diwlii këré këré ba ci kañ kañ la ñuy tabax réew mi kañ la ñuy tabax Sénégal kañ la ñuy tabax Sénégal yow réew mi ñëpp bu ñu andon bok nek ben dañuy néew doole ci xex bi ñu wara xex ak tubab bi ngeen taxaw ki man mourid la man khadir la man layen la man salafis la xuma ah, sun sunn sunniste laa man leelaa kay la kenn ku nekk nekk la mu doon waa ana ana ana sénégalais bi moom yéen ñëpp kenn ku ne yàggul sa paak taxaw fa nag yor sa jaasi nag di xàcc rek yaakaar na yaa am dëgg yéen ñëpp murit tijaan xaadir laayeen sunit animiste kenn ku ne taxaw fee di xàcc ku ne yaakaar na yaa gën sa morom c'est très bien waaye léegi Sénégal moom ana ana Sénégal moom kam na ko xeexal li Sénégal ñun ñëpp li ñu bokk ñu war a taxaw muy suñu doole muy sénégalité bi loolu ana mu moom sànni ngeen ko fële seen yoon nekk toppatoo leen kenn ku nekk fa mu féete loolu lay toppatoo booy yàq Sénégal lu ne yoonam néew ci waaye boo laalee murid bi murid bi jóg taxaw boo laalee tijaan bi mu jóg taxaw sunit bi waaye Sénégal moom kenn du ci sonn ana Sénégal dara ngeen foog ne lii ndam na nii mi nii lañ ko bëgg a tabaxee nii faut être sérieux faut être sérieux oui Blaise Diagne ministre des colonies lañ ko def yónni ko Afrique occidentale française Sénégal di capital bi mu dem wax gouverneur pour renforcer les troupes ñu renforcer les troupes pour ñu mën a guerre mu ñëw Sénégal wax ak sëriñ si wax ak kilifa traditionnel yeeg ak kilifa aada yëpp pour mobiliser recruter ay tirailleurs pour ñu dem xeexi hmm? maa ngi dégg koy lay sëñ Ababacar mbub di wax noonu sëñ bis Tuubaa mosu cee dox kii ko sëñ sëñ maam Cerno maam Cerno Birahim Mbàkke moom moo ko doon liggéey maam Cerno Birahim Mbàkke mos def lu sëriñ Tuubaa diglewul maam Cerno Birahim Mbàkke même su fekkente ne moo ko doon topp te sax du maam Cerno Birahim moom Sëriñ Tuubaa du ko jox lépp lu jëm ci at mbiri àdduna Sëriñ Tuubaa du ko dénk Sëriñ Tuubaa mbiri àdduna mbiri àdduna ki mu ko daan dénk mooy maam Cheikh Anta Mbàkke wala Cheikh Ibra Fall ñoom ay mobilisation ki yooyu d'ailleurs tirailleurs yi ñuy wax ni mobilisation bi la ci ëpp Cheikh Ibra Fall la ko doon toppatoo moo tax mu dugal ci doomam yu bari mais Sëriñ Tuubaa ci boppam moo joxe ndigal maam Cheikh Anta Mbacke mbay la ko daan sant ak wàllu xam-xam mais ay dagale ki demee ki armée yooyu suñ keneen ku dul maam Cheikh Anta Mbacke la ko daan jox wala gis ci ay archive mais maam Thierno la na ah, maam Thierno mooy ki nga xam ne lépp loolu soo bëggee xam-xam damal seeti maam Thierno Birahim te lii ma lay wax témoignage la yoo xam ne mi ngi ko def ci lettre boo xam ne mi ko jox gouverneur kene bi muy quitté Ndar di dem Mauritanie dénkaane yi mu dénkaane lettre ba gis naa ko la mu wax ne képp koo xam ne da ngay sàkku ji xam-xam maa ngi lay digal ci sama ginnaaw nga dem seeti maam Cerno Birahim Mbacke képp koo xam ne da ngay sàkku nag liggéey ak loo dunde ñaq mbay damal seeti maam Cerno maam maam Cheikh Anta waaye mu ne képp koo xam ne da sàkku ñaar yi sàkku xam ak sàkku liggéey pour ñaq tedd dund na nga seeti maam Cerno Birahim Mbacke déglu leen ma de Serigne Touba bi mu dem Ndar bi muy jóge Ndar di dem Mauritanie avant mu dem la bind courrier jox ko tubaab bi ne nañ ma ko joxal maam Thierno Birahim Mbacké def ci ay ndénkaane njaboot gi maa ngi leen di bàyyee képp ku ci biir njaboot gi koo xam ne bëgg nga xam-xam seetil maam Thierno Birahim Mbacké ma ca Daaru Muxti tey waaye képp ku bëgg lu mu dundee ci wàllu àdduna ci ñàkk jariñu na nga seeti maam Cheikh Anta Mbacké dénk na la maam Cheikh waaye képp ku bëgg ñaar yii nag xam-xam ak loo dundee ci wàllu ñàkk jariñu seetil maam Thierno Birahim Mbacké ne nag ñii nga xam ne ñoo ànd ak maam maam Cheikh Ibrahima Fall ca mbooloo ma ma moom gis naa ci mbooloo moo xam ne lañu ñu nekkee taqoowul ak charia ak sunna ñooñu maa ngi leen di dugal ñu génn ca loola wala ñu génn ci sama mbooloo dem taxawee ginnale maa ngi lettre bi de seen tubaay bind. kenn du ko wax nag lii nag naa leen ko ñamal ngeen xam réew mi li fi nekk yëpp bu ñu ko waxoon réew mi tas histoire yi ngeen jéem a dugal ci bopp nit ñi. loolu il faut ngeen def attention parce que bari na lu ngeen lo nit ñi bis bu dëgg gi génnee yéen ñëpp da ngeen xar gi da ngeen xar gi da ngeen xar gi parce que li ngeen di wax ak li am bokkut te li am yépp mën a gusee ko kenn mën gu ko wax ndax archive yi la déclassifié gul nañ ko déclassifié archive yi lépp mën a génn

monnaie bi dafa amone doole ba ñu ko dévaluer le franc français am sonn lool ba ñu am crise économique Serigne Touba yëkkati cinq cent mille francs français ci boobu époque jox ko France pour ñu relever pour aider à relever le franc français Serigne Touba kon non seulement dafa jox ay nit mais dafa joxe xaalis mo ëpp ci lim joxe ci boobu jamono ci ay koppar pour pour lan pour soutenir l'économie française yeen ay dof yo xamne ne kenn xamul fuñu ñu jógee jàngu leen jongu leen xamu dara jóg ne ay murit lañu wala ay tijaan lañu wala ay xaadir lañu di dóor tek seen ay marteau parce que bëgg ngeen ay étage ak ay jeeg am xaliss facile taalibe yi di cotiser leen jox daayira yek addi yi daanukatu jël yi luñu am jox leen ngeen di lek ngeen bëgg dund ci loolu bëgg na bu Cheikh Omar Diagne waxe ngeen saaga suma waxe ngeen saaga mais c'est faux ça ne passera pas on va vous affronter dans la sagesse la connaissance et dans l'argumentaire argument contre argument

dax la bu ñu teg ci jant bu tàng jër dax daxub soow bu ñu weer ci jant jant jant bu nekk ci digg njolloor da ngeen xam ne seen fen yëpp dax la bu ñu ci digg njolloor dégg olof yi xam nañ li may wax dax bu ñu dax bu ñu weer ci digg njolloor moom xam ngeen xam ngeen la cay mujj du ma ne bër ndax bër ne pas ab dax laa leen wax dax xaw ma nag ndax de xam ngeen luy daxam déet jiji xaw ma xam nga luy daxam déet dax bu ñu dax bu ñu dijj ci diggu njolloor xam nga luy diggu njolloor li leen xamal ne tubaab bi ñoom ñoo amoon autorité ci ñëpp sëriñ tubaab bi mu bëggee tabax juma lettre bi mu bind tubaab bi yónnee ko ko ne ko damaa bëgg tabax juma lettre baa ngi nii ma tiim sëriñ tubaab bind lettre tubaab gouverneur 1925 mu bind gouverneur pour mu autoriser ko moom sëriñ tubaab mu mën tabax jumaa ji ngeen wax tey jumaay Touba ji jumaay Touba ji ngeen wax 1925 le Serigne Touba bind gouverneur pour mu jox ko autorisation mu jox ko ndigal pour mu mën tabax jumaay Touba ji 1925 lettre baa ngi Serigne Touba ko Serigne Touba ko signé ci souf jumaa jooju 1963 lañ ko la ko sëñ Fallou inaugurer jumaay Touba ji sëñ Moustapha ko tambali àggale ko Seigne Fallou jël ko depuis 1945 ba 1963 la ko la ko inauguré devant Senghor Senghor def ci lu bari ci jumaa joojee loolu jot a wax waaye bu ko wax bu laajee wax daañu ko wax la ke Senghor def ak taxaw gam ca taxaw xaalis ba mu ca dugal keroog bi ñu inauguré jumaa Tuubaa Senghor nga ci biir jumaa na dégg toog ci ndax Senghor Sëñ Fàllu comme Idrissa Seck ak Macky Sall tey mu roog am mu neex mu naqari kon bu leen ñu tax wax plus ay mbay gi si la kii ay ceddo murit ay mambaay plus ngeen di génn plus ngeen ñuy jox envie ñuy génn di wax day gis léegi naa léegi historien la comment c'est un grand euh, c'est un grand professeur d'histoire léegi naa léegi mi ngi wax yu kenn xamul te Mbaye Guèye moo dëgër fit subhanallah baa oui loolu mooy li am loolu mooy li am li am nag li ciy jàngat te ci njariñ mooy lan lañ ci mën a jukki ñun pour mën a defal suñu réew tey ba la amoon démb ci wàllu nooteel bañ fee amati loolu mooy jàngat bi waaye buñ ko bëggee jël ci tijaan contre murit murit contre xaadir xaadir contre laayeen fekkante na philosophie bi loolu la c'est pas la peine na tubaab bi dikkaat sax moo gën fekkante ne mënuñoo ànd fexe ba li amoon démb ci nooteel gu tubaab yi nootoon suñu mag ñi ci ëpp leen doole mënuñoo ci jàngat ñun ne dañoo war a ànd nekk benn uti doole taxaw ba kenn dootuñu noot du ñu noot suñu suñu njaboot ëllëg bu fekkee loolu nekkul jàngat bi mais c'est pas la peine affaire bi du ay daanu du ay gëm-gëm du ay maala gën sëriñ du ay àllaaxira lii du ay maayo caabi àggana du ay bu ma sëñ ëllëg ay àggana sëñ bi ci ay yàlla mooy yëf yi du yooyu ngeen wax yooyu du waxi nit loolu du waxi nit de du wax nit yéen a ngi nii tey wax waxi Palestine di beut seen jot bi joy ku nekk ñaan ñaan moo leen dese yéen ba ngeen ba ba jullit ñi ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi ñaan xana yalla du du nangu da ngeen foog ne lépp ñaan a koy ñaan a koy saafara xex des fois da koy laaj te xex borom doole ku dañoo jullit yi dañoo war a uti doole uti xam-xam uti science comme ni ko Averroès waxee woon waaye c'est dommage la civilisation musulmane dañu nekkoon des gens yo xam dañu parce que alcorane na ko jangale la science mais dañ dem ba benn moment ñu xaw a ragal ci science yaakaar na science dafay contredire alxuraan science dafay contredire l'islam ñu xaw a faagaagal islam science ñoom les musulmans de l'époque avareos, lu bari wax lu bari c'est une erreur de penser que la science est dangereuse parce qu'elle contredit les vérités du livre non avareos, il a raison tous les musulmans doivent aller vers la science ñu ne ko lu parce que la vérité ne contredit jamais la vérité L'islam est une vérité. Donc la science est une vérité qui doit être conforme à la vérité islamique. Si l'islam est une vérité et que la science est une vérité, la science ne contredira jamais une vérité, ne contredit jamais une vérité. Avéré aussi. waaye boobu ju xam nga la fanatique rek xam nga fanatique ñom, dañuy ragal ko mooy mooy dof yi fi nek tay bu Cheikh Oba Diagne waxee ñuy saago parce que ragal nañu deug génn ab du ragal deug. gëstul Yalla moo la sant lo gëstu mais une grande civilisation. Égyptienne d'abord. Avant d'être égyptienne, elle était Crète. Avant, après Crète, elle était donc une, une, civilisation donc grecque. Mhm. Grec, après ñu Tasco, ko. Zulqarnayni xam ngeen lui le grand un macédonien après il y a Napoléon faut que la xam-xam bi en Occident génn ci le monde arabe arabo musulman parce que dañ ko sàggane dañu dem ba ragal science na yi science mom day ñew léeg-léeg mu indi lo xamne day weddi suñu pass pass day weddi suñu gëm-gëm yi ah, science daal wóorul kër avanage ah, na leen déedéet allons-y dans la science tay ñom occidentaux yi jël science bi tey ñoo ñëpp doole Israël gis nga dëkk bu doole ma am ay bombe atomique am ay saxam yépp xam-xam bu dul xam-xamu jinne yahudi am nañ parce que dañuy gëstu ngeen toog yéen di ñaan kon leen di ñaan c'est très bien c'est très bien

en 1918 sëñ Tuubaa am na ngan gu mu def fa doon Dakar kër googu ñu naan kër sëñ bi yaakaar naa pàkk boobu bu ma saa na toog ba ngoon fa la daan toog ci pàkk boobu ñu naan kër sëñ bi euh, mu tudd sax sëñ Modou Moustapha bi nañu fexe am ko pàkk boobu muy pàkk boobu ñu naan kër sëñ bi sëñ bee ko digaloon maam sëñ Modou Moustapha ne ko pàkk googu bi ñëwee Dakar ci la ci la daan toog ci pàkk ba yàgg mu ne pàkk bi nañ ko jënd kër bi kon lu awma lu dul di njukkeel Cheikh Omar Diagne ci gëstoom bu muy gëstu sur des sujets divers et complexes ba ñu bari di ko xas nanga ko fo nekkee professeur yow xana ya xam lepp yow xana kër kër mais aduna mo tass ak jaay li yàggu daj ci Sénégal subhanallah waaye bu ñu demee maanaam Cheikh Omar Diagne yow da ngaa xam lépp mais xanaa xamuñu ne les les hommes d'hier les les grands savants les grands philosophes les grands scientifiques d'hier ils étaient des gens pluridisciplinaires tey la àdduna dox ba kenn ku nekk naan man lii rek laa xam nit ñi léegi benn xam-xam rek la ñu am mais mag ñi y a un siècle deux trois siècles en arrière les gens dañu daan am quatre cinq spécialités léegi la àdduna di dox nit ñi di am benn xam-xam képp yam ci mais borom xam-xam yi démb yi dañ daan am ñett ñeent juróomi xam-xam dañ koy am

lolou moy xam-xam xam-xam tant que tant mi ngi uniforme xam-xam tant ben xam-xam la amugo xam-xam kep ko am ben xam-xam amul xam-xam ben xam-xam du xam-xam ndax xam-xam deug deug deug deug deug deug deug ba lañu ko attesté ne li xam-xam la il faut nga jël xam-xam bobu safanté ko ak yeneen xam-xam xam-xam dañuy croisante dóorante ba am lu ci génn fofu lañuy xamé borom xam-xam borom xam-xam du nek borom ben xam-xam borom xam-xam lay am xam-xam yu bari ci fànn yu bari loolooy xam-xam mais légui aduna bi dafa tumranké lolou ba soo amee xam-xam ci bari sax dañ naan yow xanaa da ngaa bëgg xam lépp dañu yaakaar da nga prétentieux dañu yaakaar da nga tiitaru wala yow looy jaay wala looy wane wala kër kër fekk loolu li jaadu mooy ki dafa war a xam lu bari looloo mais léegi boo amee xam-xam bu bari sax dañ la koy iñaane wala ñu yaakaar da nga tiitaru te loolu moo war kenn ku ñu gëstu xam lu bari nañu léegi ba bëgg lu yomb bëgg seen i jéeg yuy nappaaje xaalis bu yomb addiya ju wadd ñuy fottosoo ko taalibe yi kër kër lépp lu yomb rek waaye gëstu ut xam-xam di nga maam am autonomie ci wàllu xam-xam am autonomie ci wàllu euh, liggéey am autonomie ci wàllu koom ci wàllu dundin am autonomie ci lépp ba moom seen bopp xalaatuñ ko coggu rek sekk fekk Sëriñ Tuubaa muy dem nga ne nongu ci looso bëgg buy dugg àjjana nga dugg ci poos bi rëcc ndax yàlla bu dugg àjjana nga bëgg ci lan ci say tappale ak bëgg sukkandiku ci liggéey bu Sëriñ Tuubaa liggéey yàlla Sëriñ Tuubaa la mu liggéey yàlla pour pour moom nee na liggéey lu ma kenn yàlla li ma defal sama yàlla yëpp sama bopp bi laa bëgg a mucc damaa bëgg man ma mucc pour man mi ma mucc moo tax may liggéey moo tax may dang-dangi yow nga nekk ca la la neex nappaaja say jeeg te naan ci sëñ bi laa bokk boo liggéey sëñ bi laa yaakaar foo ko yaakaare fan foo ko yaakaare ku la ko wax nga mer saago ko Ah, on na commencé une Touba est venu à Dakar en 1912 alors qu'il était déjà en, en mais euh, être en résidence surveillée ça ça veut pas dire être en prison être en résidence surveillée c'est que tu es dans une résidence surveillée soo de dem fenêtre, on t'autorise à partir Il est autorisé dama laaj mag manière kay dama laaj Il ma wax de bind tubaab ko être en résidence surveillée ça ne veut pas dire être en prison xam ku nekk prison moo dul mais boo nekk résidence surveillée tu es dem fii bëgg dem fee mën nañ la ko autorisé Tu yi ñoo autorisé. Ah, waaw c'est possible c'est rien loolu de moo am dañ ko utiliser mu dem Dakar loolu mooy lem ba xaw ma sëriñ Tuubaa am na sëriñ xaw ma amul sëriñ waaye daal loolu tubaab yi ñoom loolu lañ bind Cheikh Sidiya daal moom nee nañu mooy turam tubaab li ñu bind mooy c'est le talibé de Cheikh Sidiya Bayo en Mauritanie am na mu amul loolu moom en tout cas man li tubaab yi bind doon lay wax. waaw léegi nag yéen ñëpp ñiy weddi ñëpp dañuy weddi waaye duñu teg dara man maa fi teg dara ngeen weddi ko bu ngeen ko weddee da ngeen fi teg dara. <laughs> xam nga weddi dafa yomb de <laughs> toog rek ci say ci say yëg-yëg ak say pas-pas ak say daanu ngay ngay weddi <laughs> booy weddi kay da nga fi teg dara <laughs> waaye yéen xam nga lii a uti xam-xam ngeen li ngeen gëm xamu leen mu doon li ngeen topp xamu leen lu mu sax li leen jëriñ ci wàllu diine waaye histoire taarix bi rek xamu ko taarixu Sëriñ Tuba rek xamu ko yéen xamu fu mu jaar xamu leen xamu leen ci dara ba noppi yéen a taxaw fi di weddi weddi man kay ko meddi mais mané won Dakar en 1918 da nga ma en 1918 c'est c'est Paul Marty qui qui qui écrit j'ai interrogé les envoyés d'Ahmadou Bamba actuellement à Dakar Dakar le 29 octobre 2018 euh, 1918 euh, le 29 octobre 1918 c'est Paul Marty qui écrit hein vous devez ci Archives Sénégal nga fa 13G 12 Paul Marty dit note c'est une note j'ai interrogé les envoyés d'Ahmadou Bamba, actuellement à Dakar, au sujet de la croix accordée au Sérigne. Qui histoire croix bi nga xam ne bi médaille nous avons joxe di ko di ko di ko di ko jox sëriñ su bari nga xam ne takkoon nañ ko sëriñ Tuubaa moom bi ñu ko ko joxee euh, dana moom du takk croix du ko takk moom du takk croix ndax diine mayu ko muy takk croix mhm, moom loolu la bind waaye nag gànt gi mu gàntal croix bi Paul Marty moo nettali nee na gàntal gi mu gàntal Tuubaa croix bi ñàkk koo takk ci moom la gàntal waaye nag nangu na pour recevoir croix bi ndax honneur la bu ko tubaab bi di jox moom kon ñi ne moom ñi ko ñi nga xam ne ñoom dañu ne sëñ tubaab dafa gantal croix bi ki tubaab bi gantal gi mooy du ko takk waaye nag mën nangu comme teranga la mën na nangu pour firndeel na digganteem ak tubaab bi ñagas-ñagas amu ci parce que tubaab bi dañoo yàgg di ko surveiller yaakaar na ak taalibe yi dafay préparer pour dal ci seen kaw ak yooyu waaye moom loolu taxu koo jóg waaye jël lii nga xam ne muy teraanga ju ko tubaab bi jox nangu ko day firndeel ne kon diggante ma tubaab bi ñagas ñagas amu ci donte moom nee na du ko takk ndax diineem may ko lii sëñ Tuubaa taxaw na ne moom du jël du takk croix waaw te gisu leen fenn ci ay cëri yëre sëñ Tuubaa la wax amul ay photo yu bari yu génn gun gisaguma ko boog man gisuma benn kiyam ci photo yi ma gis yoo xam ne takk na ci croix mu ne nag bu loolu mënta ñàkk bu mënta ñàkk bu ngeen ko bu mënta jël croix bi tamit ngeen jox ko diplôme bi diplôme bi moy attestation bi mom mom nangou nako jël mu ne lu tax mu accepté loolu mon attestation wala diplôme boobu wala li attesté ni kat moo Kura bee ànd moom mën na koo jël te jël gëm koy jël dafay firnde su mon ne moom ak digganteem gouverneur bi ñagas ñagas amu ci. et que loolu dafay attesté xam nga que il a bien donc accepté cette marque de faveur. mu j'ai décidé. Ahmadou Bamba a accepté également la croix qu'il ne portera certainement jamais, car les principes religieux, m'a-t-il dit, si opposants. dana ko du ko tak ndax dafa wouté ak ay gëm-gëmam ci walu vous trouverez 6 juin reçu de cette remise bagn ko ko ki ko ko jox daf doon rendre compte gouverneur ne ko nag réception maanaam euh, reçu bi nga xam ne mooy firndeel na jox nañ ko sëñ bi cadeau bi maanaam kurkuraa beeg yooyu jox nañ ko ko reçu bii moo koy firnde donte du ko takk am na ñu takk croix kay ah photo yi yi photo yi am na ñu takk ko <laughs> am na ñu takk ay croix kay takk ba ne code bien sûr kon dama ci bañ a sori ndax xam na yu bari yoo xam ne fii maa ngi fekkee courrier yu bari ay lettres yoo xam ne léegi <laughs> nga c'est pas l'objet de waaye damay wax rek ni di jaajëfal Cheikh Omar Diagne di ko dëggal li mu wax dara kenn mënu ko teggi loolu mooy am waaw nit nag mën naa bëgg sëriñam mën naa am fu mu teg sëriñam mën naa am ay xalaatu boppam mën naa am ay idée boppam ay lu mu imaginer ci boppam jàpp ne nii lii moo am sama sëriñ nii la mel nii la daan dundee léeg-léeg li nga def ko ci sa bopp loolu kenn ku ne am nga ci droit waaye li nga li ngay jeneer bokkul ak li am te di gént li ngay gént kenn ku ne am nga droit gént waaye bul jàpp ne rek sa gént googu mooy dëgg de boo gént bañ ne la pëkk pëkk yee la taalal télé bi ne la li nga doon gént ak lii dëgg gaa ngi nii su boobaa nag da nga sa bopp ndax gént gi moo neexoon lool waaye loolu gént na nga jàpp ne gént la. na nga jàpp ne gént la kon loolu mooy li am. Talla Dieye nee na yow da ngaa complexé lu tax Talla lu tax nga wax loolu lu tax nga damaa complexé lan mooy complexé hmm? Talla Dieye Talla Dieye lan mooy complexé hmm? hmm? Talla lan mooy complexé Talla Dieye man waxuma dara de man samay jukki laa yor di jukki de jii moom day jukki waaye maa ko daa ko jukki de ah ndeysaan Cheikh Ibra Faty Mbacke Cheikh Anta a ngoog hey hey William Ponty lami di Serigne Touba William Ponty bu sunku mëndoo hmm. fen ma surang surang waaw ah, hey hey Mouhamadou Moustapha Mbacke ndeysaan Mouhamadou Moustapha Mbacke ngoog kon nañu dëgër àndandoo taxaw bu ñu kenn lem seen làmmiñ ñu rëy ak seen saagaaki seeni fen yëpp bu mu tee li dëgg ñu wax ko dëgg rek mooy dëgg waaw waaw ah, wax yu bare coow lu bare fen yu bare ngir bëgg loo dundee ak looy duufal te duuful fekk xar bu yooy nga bëgg koo duufal te amoo ngooñ du sotti du sotti réew mi mënuñu koo tabax ci histoire bu tegul fenn histoire bi dafa war a leer ñu xam ne réew mi lii fi amul démb barki démb lii mooy Sénégal démb ñu taxaw nag soog a sukkandiku ci loolu nag jëm ca kanam tabax suñu Sénégal suba waaye tabax Sénégal ci ay fen ci ay tappale ci ay loolu loolu dafa wóorut sax loolu dafa wóorut c'est pas sécurisant loolu dafa wóorut pas kon loolu la yàlla dogal yàlla mooy may Serigne Touba lii xañ ko lii jël loo lam ko xañ jox ko tubaab bi amul ku yàlla may lépp da lay may lii xañ la lii bu ngeen yaakaaree nag suñu mag ñi dañoo baax ba yàlla xañu leen dara da ngeen a juum am na lu leen yàlla xañ yàlla xañ leen ay fetal xañ leen doole juñ mën a taxawee xañ leen fippu xañ leen mëna dal ci ko tuba bi ba am ndam ci mom lool yalla da leen ko xaj lool tuba bi lako ko may lool nak yeen ngeen bëgg ko duppal ñi léegi nag bëgg indi leneen lo xamne dafa wuté ak li Cheikh Omar Diagne di wax lool yeen fu ko tek ci pass pass do ngeen ko tek ak bëgg seen sëriñ am ngeen droit bëgg seen sëriñ am ngeen droit wax na lu leen neex seen sëriñ waye nak bu leen sosal seen sëriñ bu leen ko waxal wala ngeen koy dëgg jëm diko jëma sampal lo xamne amut lool ay sos la li kep lettre bi moy lettre Cheikh Ibra Fall boo xam mi ngi ko bind ndand la ko bindee le 23 janvier 1909 à ndànd boobu Cheikh Ibra Fall la ngi ndand lettre bi monsieur le gouverneur du Sénégal à saint lui di ko bind ci mbirum Serigne Touba di ko ji sakku ci mom di ko ñaan mu fexe ba delloo ci serigne bi duma len lire la ci biir duma ko lire. waaw lettre maam Cheikh tambaki Mbacke kon mbokk yi lii mooy li ma bëggoon indi ci rek di sama participation di ko di solidariser wu ak Cheikh Omar Diagne di ko dooleel di ànd ak cili ci ah, di degil li wax coow dana bari ku nekk yuuxu wax fee waaye wallaahi dëgg euh, dëgg rek lay doon coow li mën naa bari xooqataal rek nappaate gi lu ne mën naa bari waaye mbooloo lu mu takku takku takku takku takku takku takku takku dana gën a dana bari coow de waaye dëgg fa mu taxaw rek lay taxaw dëgg rek mooy dëgg léegi nag wet weddi bu ngeen amul lay da ngeen di fexe ba def poñe Macky Sall On avons demandé de déclassifier les archives de la colonisation Nous ko déclassifier Nous avons tas ko nous ku Nous mhm. Nantes Paris Marseille Sénégal 1903, mhm. <laughs> mhm. mhm. à la veille de son départ en résidence obligatoire à Sao, Telma, Mauritanie, en 1903, Cheikh Ahmadou Bamba adresse les recommandations suivantes à son frère Cheikh Ibrahim Fatih.

kon duma ko euh, guddal ci wàllu woowu loolu rek laa ci bëggoon a wax euh, yam foofu ndax mënuñoo wax lépp li duuf ci nag wi xajul ci kaw diir gi li duuf ci nag wi xajul ci kaw diir gi kon euh, dañu koy yemale foofu rek bañ cee ñambaas lenn daa ngi defaat yeneen yi live xam na incha allah ci yeneen yi mbir yu lambo rew mi ta indi gi suñu xalaat comme niñ ñu ko defee saa su ne euh, coono dina bari ndax archive yu gennul ñi wedd dañu weddi loolu way ñom dañuy weddi donc sa way duñu tek dara way ñi saxal ñom am seen sukkandiku kay diko tek, ah am ñu samp ñoom waaye weddi mom dafa gëna yomb saxal weddi moom dafa gën a dafa gën a dafa gën a yomb saxal euh, Zakariya ak ñang bu dee da ngay diingat génneel sa bopp si patriote yi bañ a may noon yi bunt xawma li nga bëgg a wax foofu de je comprends rien da ngeen di jaxase ay wax man xawma li ngeen bëgg a wax man ah que penses-tu de l'invitation du président Sonko au Togo ah waaw loolu de am naa ci xalaat waaye euh, bëgguma ko woon a booleeg lii ndax li ma ko defoon ci titre rek ci Cheikh Omar Diagne bëgguma ko woon a booleeg loolu dinaa ki dikk yooyu yëpp dinaa ki dikk dinaa xëy na fi yëg ngoon su ma amee jot mën na am ma defaat beneen live boo xam ne dinaa ci dikk ci yooyu yëpp dana yaatal sur la question israélo-palestinienne bi nga xam ne question qui date de 1947 il faut que ñu indi historique bi yëpp expliquer leen c'est quoi les enjeux ñu bari ñu ngi wax ci passion mais xamuñu ni mbir ba nga ko da ngay da ngay xam fu ciolu jóge histoire bi fu mu jóge te lolu sax 1947 sax c'est récent waaye Israël il faut ngeen xam fu mu jóge Israël dafa yag Israël xam histoire Israël euh, xam ne fofu ñuy xëccoo bu kenn yaakaar ne c'est palestinien hein terre boobu bu ken bu la yaakaar ne c'est palestinien cette terre là ce n'est ni juif ni musulman il faut ngeen xam lool c'est une terre bo xamna ñom ñoko bok ñofu bokk ci saan dëkk cosaan ñii ne ñoo fa jiitu ñee ñi ne ñoo fa jiitu ñee léegi pour nga mëna xam source ku ko mom il faut nga dem aussi loin que possible dans l'histoire pour remonter pour xam ñen ñoo mom source te mom source dafa jafé déterminer parce que bo na ma fi jiitu ki na sama maa moo fi jiitu kër kër loolu beneen histoire la luy solution bi nak nekkatul di nekkatul di di di wax ñii ko mom ñeemo muñu ko li solution bi mooy fexé ba créer deux états indépendants distincts bo xamna kenn ku ne da nga respecté sa bop sur un territoire bien défini bo xamna ne def nañ fi ay rencontres yu mag ay sommets le sommet de Camp David am def nañ fi ay sommets yu bari pour fexé ba am la paix mais ba euh, da fay dess lu tax mënuñu am jamm ci bobu zone lu tax mënuñu dëkkandoo lu mu nekk zone bo xamna y' a pas que les juifs et les musulmans y' a y' a les chrétiens aussi y' a les chrétiens Jésus-Christ mi il faut ñu jëc ñom sam église bu mak ah xabru Jésus-Christ fofu la né fofu la tamit angélique nga foog ñoom dañ leen koy bayé maanaam du fofu c'est un creuset c'est un creuset bo xamné les trois livres les trois livres révélés ñom dañu dajee fofu fofu c'est c'est l'épicentre intelligence mo fay dox way du ay passion tolérance man ki sama déggin borom bi nimu gox bobu convoitise bi fa am bëgg-bëgg bi fa am catholique yi musulman yi yahudi ñëpp di ko xëccoo kenn ku ne bëgg fa dara dafa am lu fa nekk xëy lo xamné lolu lamuy symboliser nekkul na mako mom moom leen ko lamuy symboliser moy yalla ci boppam mo bëgg une intelligence humaine bu jógee ci yahud bi jóge ci musulman bi jóge ci catholique bi ñu mën a taxawal loo xam ne ci intelligence lañ koy teg pour mën a cohabiter loolu zone foofa loolu rek moo ko mën a am mënoo koo jox yahud yi mënoo koo jox musulman yi mënoo ko jox catholique nekk dañuy reyante ba jeex loolu il faut ngeen xam ko seen bopp yi coexistence moo fa mën a am mais pas naan palestinien yoo moom fu ñu ko moomee yahud yee moom loolu histoire moo koy démontrer il faut remonter aussi loin possible pour xool ñan ñoo fa ñan ñoo ko njëkk a peuplé la question donc israélo-palestinienne une question c'est une question euh, qui est politique d'abord avant d'être une question religieuse c'est d'abord une question politique une question religieuse et souvent cette dimension politique est occultée par cette dimension musulmane parce que c'est normal hein, ce sont des grands spécialistes musulmans effectivement pour avoir la solidarité internationale pour avoir les musulmans, dugg ci bi jouer la fibre de la l'appartenance islamique oui c'est un symbole islamique euh, euh, la mosquée Al-Aqsa c'est vrai mais il n'y a pas que aqsa là-bas le Saint-Sulpice foofu la nekk c'est Jésus-Christ il la nekk a dañu am église bu mag boo xam ne xam lu muy jésus si xam catholique yi moo une ñu Jésus xam nga a du yahudi tamit ñoom dañ fa am ay la le mur de lamentation loolu tamit ki seen diine ñoom loolu dafa am dafa am dafa am taxawaay te lii ma leen wax yëpp matul deux kilomètres carrés ci benn ci benn espace ñu nekk fa. léegi lu ngeen foog ne léegi musulman ñoom dañuy bàyyi seen jumaa gi dem seen yoon dañuy reyante yahud bi de miiram boobu da ko fay bàyyi dem déedéet catholique bi église am ba mu fa am ak Jésus Christ mañ fa yonent Yàlla instant bañ fa jenc ngeen foog dañ ko fay bàyyi dem <laughs> Il faut faire très attention. C'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet politique. C'est un sujet politique dans le sens où c'est une guerre de domination entre les Arabes et les Juifs. Quand je parle d'Arabes, je ne parle pas d'islam. Hein. Quand je parle de Juifs, je ne parle pas de la religion juive. Voilà, donc je m'exprime, c'est entre donc les Arabes et les Sémites. mu gën l'air leer pour mieux comprendre affaire xeet la ay peuple arabe ñoo taxaw na ñom ci ñoko mom. moom sémites yi moy juifs taxaw taxaw na ñoko mom. Légui sémites yi di utiliser la religion le judaïsme arabe bi tam di utiliser l'islam ñu dugg ko ci kenn ku nekk di xeex il faut savoir faire la part des choses Li diine ak lu du diine li xeet ak lu du xeet li islam ak lu du islam mais ñun dañuy jaxase lépp di wax rek du passion mooy régler question boobu du dóorante du xeex du dara intelligence ak dépassement kese mooy tax zone boobu mën a am jàmm àdduna bi am jàmm foofu su amul jàmm kenn du am jàmm léegi israéliens yi ñu ngi def ay exactions ñu ngi dal ci kaw palestiniens yi parce que ñu leen ëpp doole parce que ñoo leen gën a organisé parce que ñoo leen ñoom ñoo gën a ànd. Mhm. naqari na mais yàgg naa ko wax samay live man dama gëm des rapports de force dama gëm loolu man parce que dama visiter l'histoire aussi loin que possible saa yu ma gën a xuus ci histoire damay gis ne adduna bi yëpp li façonné la vie ce sont des guerres les combats le moteur de la vie c'est la guerre fi àdduna bi ak si yëpp xeex moo ñu fi indi ba ci islam bi sax ba man ko duggee di ko gos damaa gis ne xeex moo tax mu taxaw bu xeexul woon du taxaw moom diina ci xeex jaasi génn tuur et deret bu ko def woon du sotti ma ne ah donc le secret de la vie c'est la puissance ma ne kon nañu uti puissance boo utul puissance nag israélien yi di ut doole di ut puissance def ay recherche sur la science yow ngay tàllal sa loxo di ñaan nekk ci jàkk yi gu dégg bëccëg c'est bien mais bu israélien bi duggee sa jàkk ji dugal fa bomb yow ay xeer ngay for intifada xeer parce que bi juif bi di gëstu nek ci centre de recherche universitaires di investir ay milliards pour développer ay armes de pointe yow ya ngay naan sa zirik yow say jeeg nekk ci jàkk ji di taxaw sa loxo di ñaan yalla du la xeexal yàlla néew fi xel mi yalla jox juif bi muy defar ay sox pour man la duma xel mom la la yalla jox nga fooyee sam xel yow taal sa loxo di ñaan yalla ne la man luma ma loo may ñaane li ma jox yahud bi la la jox cim xel pour nga war kee tàggat sa bop dund ci ar sa bop nga jël sam xel sanni ko fële tàllal so loxo dima ñaan luma lay lo ma ñaanate li ma ñaan may naa la ko may ko yahut bi yahut bi moom jël bosam ngëpp ko wulli ko génn ci ay sox ba bu la fekkee si biir jumaa duma dumala ko nga genn jumaa ji ngay ngay fàkk xeer di ko sanni ku lako def kenn tegula ko nga yuuxu nak ku nek naan wuy jullit ñi jullit ñi jullit ñi di ngeen di yuuxu dafa bari da ngeen di yuuxu guddeeg bëccëg wuy wàlloo wuy wàlloo wuy wàlloo vous avez la puissance financière vous avez l'arabe vous avez du pétrole vous avez du gaz vous avez tout mais vous n'avez rien en termes de puissance militaire lu tax bàyyi leen yuuxu yi ngeen jóg dem liggéeyi ut la force adduna bi ku fi bëgg dund da ngay am sox da naa yoo fetal kenn du la xoqatal te loolu iraniens yi rek ñoo ko dégg kenn du leen xoqatal iraniens yi rek ñoo siggil le monde musulman les iraniens ñoom dañ ñoo dégg alquran kenn du leen bett kenn du damm seen loxo kenn du leen def ay jaam dañuy xeex ba tëdd gi naaj yi foo leen fekk ñu ngi centre de recherche les scientifiques les savants iraniens foo leen fekk ñuy gëstu yor seen ay armement kenn du leen xoqatal iranien yi rek lañ teg nit ñoom doog lañ ragal waaye loo gis nga lañ def dañoo dem ci seen mbokki yahud ya nekk Arabie Saoudite la famille Ben Saoud la nga xam ne ay yahud lañ ñu dem lënkaloog seen mbokk la yahud juif yi pour dal ci kaw Iran te iranien ay julit lañ de waaye ñu ngi leen takfir ne ay yëfat lañu nañ leen rey <laughs> diine ji fu mu jëm islam bi fu jëm ñu waroon taxaw ànd nekk benn dal ci ko yahud bi ñoom ñoo ci kenn ki ma dem ànd ak yahud bi pour dal ci <laughs> lépp kenn mënu ko wax quoi yéen xam nga lii xam nga yéen bu ngeen bu ma gisee su balaa sama xol bi jeex nag ma gis sénégalais yi nga xam ne ñoom tojuñu fenn kenn xamul leen ñuy mbeppi mbépp nga xam ne gàmmoo cant ak yi rek lañ ma nekk réseau naan palestine palestine yéen toju leen fenn yéen da a leen toju leen fenn yéen ku ngeen soutenir palestiniens yi da ngeen leen mën xamuñu leen sax foofu wax bi du neex mais c'est la vérité man gëw ma ay ju toog di jooy gis nga tubaab yi ñëw si Afrique di ñu coloniser man loolu méttiwuma de pourquoi parce que suñu maam yi ñoo nangu ku leen coloniser méttiwuma parce que suñu maam yi ñoo ko nangu am na ñoo xam ne ñu taxaw lànk laajo dafa xeex ba jaxu ba dafa xeex ba tëdd laajo dafa xeex ba daanu donte noot nañ ko mais dañ ko rey voilà ñeneen ñi dañu nangu collaborer ñoom ñoo ko nangu tubaab bi noot leen adduna bi ci rapport de force lay dox ba léegi nii tubaab bi noot dañ ñu nootoon ba léegi moo fi nekk ci rapport de force ay soxla lañ taxawal coloniser ñu ba léegi suñu économie ñoo ko yore ngeen toog fi di ñaan ana xanaa yéen ba ngeen dalee ñaan ba léegi xanaa yàlla du nangu ñaan ñaan yi ngeen ñaan xanaa ñaan day am fu yàlla day nangu xanaa sax mais ñaan gu dul nangu mukk ci Sénégal laa fu ngeen toll ci jullit ñi sax laay wax jullit ñëpp fa leen fekk ñu ngi ñaan mais ba léegi amaguñu bombe atomique ba léegi mënaguñoo taxaw nekk benn ba léegi mënaguñu ne hey Israël bu ñu fontoo boobu ba léegi yéen a ngi ñaan yàlla leen na jéppi du nangu seen ñaan leen a jéppi loolu koy dëgg parce que fi ngeen foog na foofu la yëf yi nekk yëf yi nekkul ci ay ñaan yëf yi mi ngi ci tàggat sam xel ut ay sox ay bomb dem entraîneur yooyu ba taxaw ba àll ku la laal ko wéqee mu dalli fële loolu iranien yi képp képp kepp ñoo ko dégg te ñu ngi ci Arabie Saoudite américain yi ñoo war ci seen kaw ak yahud ak yahudi Égypte ñoom ñoo ko séddoo ak occidentaux yi ay y dëkk yi waxuma Turquie ci a bañ jouer en double jeu parce que Turquie ak Arabie Saoudite déggoowuñu Turquie ak Iran xaw mais de temps en temps Turquie dafa nekk ci ligne géopolitique bu bu bari Erdogan Erdogan ci propagande Erdogan il est dans la géopolitique pour positionner parce que Erdogan dafa dans une zone bu stratégique mooy dafa à mi-chemin entre l'Asie l'Europe nekk à la frontière mu nekk benn zone bo xam autant l'organisation du traité de l'Atlantique Nord nga xam moy la force de défense et de sécurité des pays occidentaux C'est un siège yu mag Turquie Turquie même est membre de l'OTAN ba pare moom mooy wëlbatiku taxaw ne ñëw dafay ñëw xeex ak ñeneen pays yoo xam ne mooy Israël ak États-Unis yooyu ak Arabie Saoudite nga xam ñom ñom ñoy dal ci kaw palestiniens yi Turquie mu ñew taxaw ne day xeex ak ñoom te pendant ce temps mom il a ouvert une base militaire de l'OTAN en Turquie kon mom dafa nek ci diplomatie mom Erdogan mom ci diplomatie lay dox mom mom c'est un grand stratège mom je le comprends lim def rek xam naa tax mu def ko bokkul ak Iran moom Iran mom day xex Iran moom day xeex mom day xeex idéologiquement dafa am philosophie am lu mu taxaw di xex parce que mom dafa am philosophie Iran mom dong moko am parmi les pays musulmans mo gëm bopam en tant que pays musulman mo am autonomie am indépendance am armement am dooleem di xex Iran rek moko am ci dëkk ci àdduna dëkk jullit ci aduna bi yépp Iran rek moko ko am kenn am soo ko waxee nag ñiy dund sunna na hii ñooñu ay kéefar lañu ndax gëmuñu yàlla xaw ma dañoo waxoon lii kër kër ba maanaam jullit ñi <laughs> non li leen dal seddul billahi ña ñi ñi jàngi arabi saudi ña ngay takfir waa iranien yi ña ngi leen takfir lu ñu ànd am doole jël science bi nekk ci iranien yi science bu defar bomb bi arabi saudi iran bu ñu àndoon tey nekk benn benn jullit ci àdduna bi kenn dootu leen xoqatal waaye fexe nañu ñoom tubaab yi fexe nañu ba tàqale Arabie Saoudite ak Iran def leen ay noon Arabie Saoudite fi mu boo ko ne c'est ennemi numéro un ci àdduna la lay jox suis ennemi numéro un Arabie Saoudite <laughs> fuñ jëm je man yi passion man ci ay ay man man je réfléchis ci seen yi ci ay Israël Palestine que le conflit israélo-palestinien kooku ba def deuxième troisième exposé le conflit israélo-palestinien ba bay def deuxième troisième année suis exposé dama xam ba sax ci man voilà maintenant pour nga am un état palestinien viable il faut que Palestine ait ay support ay appui des pays appuyer militairement pour moom un taxaw am armement gis nga amul looy am ci aduna loo xam ne dañ la koy may gis nga aduna bi yërmande amu fi aduna bi maslaha amu fi rapport de force rek buuxante ak doole ba ku nekk taxaw Israël comme dafa ëpp doole Palestine nii rek lay demee tant que Palestine taxawuñu ba am doole bi Israël am ñoom ñaar kenn ku nekk xam sama dem ne kii kat am na doole ji ma am kon man au ma intérêt pour dal ci kawam ndax su ma dalee ci kawam duma ko gañe te moom duma ma gañe su ko nappen le stade de l'équilibre de la terreur téréer manam musiba bu demee ba tolo muy équi ba am équilibré fofu la jamm di am mais jamm du am mukk dans dans le déséquilibre des forces des rapports de force gis nga suma lepp léppee doole jàmm du fam jamm mi ngi am ba buñ ñu ma maag yow ñu xamné amuñu intérêt pour xex parce que doole ji ma am nga am bo ma boo ma dóoree doo gañu gañe du ma gañe su waa dañuy par force parce que ñoo tolo doole qu'on appelle l'équilibre donc de la terreur mais tant que Israël mi ngi ëpp doole Palestine da koy ndoggatu puus ko puus ko ba kenn du fa nekkati dañ koy ndoggatu bu mu génn Palestine mënu leen ci dara da ngeen wax yéen ñëpp seen bët yi bët yi ngeen bët di jooy dugg jàkkee di ñaan ñaan leen ba yàlla bi du sotti yàlla dafa yàlla bind leen pour ngeen nekk di ñaan rek seen xel yi mu ubbi ubbi seen bopp yi dafa am xel ngeen nekk fi ñaan da ngeen nelaw ñaan ñaan baax na ñaan yooyu fa jullit la waaye jéemu leen dara di ñaan ana ana li ngeen ñaan anamu kañ la koy ana yàlla nanguwu ko ba ngeen dalee ñaan ba leg isaac bin jann fi de ya sa Faat jaar fi de li de ci ay nit ci ñu doon bëgg jamm ba leg yalla xana mom wala yalla dafa ubuntam bopp ba ngeen dalay ñaan ba leg ana ñaan gi oui les deux corps sont en paix parce que y a l'équilibre des forces ce qu'on appelle l'équilibre latéral en matière donc militaire quand tu fais donc euh, des études dans ce sens effectivement dañ le ko d'angle

kenn du leen bett di leen di leen dóor di sox américain lu ñu bari bari bari doole ñeme wuñu ko bombardé kenn du ko laal loolu loolu bañ a lekk sénégalais yi nañu dee bale si ñëwee nañu dee nañ jël xaalis yëpp investir ko ci ay armement na ñëpp dee wala ñu lekk suuf jar ko pour nga am ay sox am arme am militairement taxaw militairement Corée du Nord noonu lañ def kenn du leen noggut président bu ñëwee baleen fi li mu ñu fenn Israël noonu lañ def taxaw investir massivement dans dans l'armement Israël

la crise israélo-palestinienne toutes les crises qui se sont succédées c'était toujours comme ça un engouement oui nous sommes les palestiniens oui def plaidoyer deux mois trois mois Israël lay est de dem Togat. lu jeex ba sa su ko mu Il do duma Il wuy wuy wuy Il Israël mu dem parce que dafa yor dole fi di xal yalla naan wuy yàlla suñu kii bi suñu maam yi ñoo ko moomoon dañu bëgg nga delloo ñu kii wooy wooy wooy am na sax ñu koy def ci ñoom am na benn catégorie les orthodoxes juifs la nga xam ne fu leen fekk ñu ngi ci midi lamentation bi su seeni mbaxane di koppati di di ñaan ak julli ñooñu bu doon ñoom rek naar yi gën na leen fi bu yàgg ñooñu juif yooyu di ñaan ci mur de lamentation yi bu doon ñoom ak palestiniens yi palestiniens yi dàq na ngeen bu yàgg waaye ñoom yi compte wuñ ci loolu de dañoo dem uti ay sox uti ay armement uti puissance kenn du lu ci way di ut ci aduna te uti wo dole militairement taxaw jam ngay nek rek di yuxu di ñaan ak di wut wallu ak di wote wallu ñu nak naar yi ñëpp ci yem ñu naar yi li ñu yor ci pétrole li ñu yor ci gaz li ñu yor ci alal da sénégal nga xam ne seen koddaay dafa cëkk ngeen boté gamb tek ci sen dara doyul ndox mu baax sax mun leen ko am yene taxaw di wax waxi palestinien pour lan

tant que yéen sénégalais yi xamu len lolu du ngeen dem fenn yelwaan di dundé ngeen fi nek ak fottu su ba xëy outil uti force force nak mbolo koy def mu takku mu ànd waxuma mbooloo mu ànd man murit laa ki daayira bi ki da tijaan laa ki daayira bi kee ne laayeen kee ne salafis yi ngeen yéen takfirante di regarante réseaux sociaux yi facebook bi yak ngeen ko ndax yow euh, bidaa yow xomu takfir yow euh, seen wax yi ci wax yo xam ne ajulum ngooñ ci rek ngeen di ci facebook bi guddeeg bëccëg ou le ngeen dajaloo ngeen seen xam-xam defal ay missile fexe ba sénégal am puissance déedéet ki salafis la ki mourid la ki xaadir la ki tidiane la ki ci yooyu rek ngeen di nekk guddeeg bëccëg pendant ce temps face facebook bi loolu taxu ko taxu ko woon a jóg ak whatsapp bi isaïe pendant ce temps ñi ngi seen laboratoire ñoom di réfléchir ay armes de pointe de puissance pour lan pour yokk seen doole pour que boo liggéey bu sénégal jógee napp napp ñu sànni fa benn missile yéen ñëpp ngeen dem barzaq oui parce que pendant ce temps yéen a nga nekkoon ci whatsapp bi maa la gën sëriñ bi lay xasida bi jàng ah, oh.

si ñun rek nga fi nekk moo tax doole rek fi am doole ko ëpp sama am doole noggatu ko ba ma teelee xam loolu man laa daal di jóg nag xam ne léegi àdduna bi nag moom boo ko bëggee réussir il faut nga froid il faut nga nekk nit ku dëgër am xol bu dëgër doo dox ci ay yëg-yëg ay pas-pas xam secret bi mooy doole kon nañu utu doole mais loolu ñu ko comprendre Sénégal bari wuñu loolu moom ma metti ni ma comprendre ne yëf yi doole la ñu bari comprendre yëf yi yaakaar nañ ne mystique la affaire yak nañ serigne bi la bu ngeen amé mystique ak seen serigne kay fexalen ba pale seen genn ci comme am ngeen mystique seen serigne su ñaman ñepp ana mystique bi génn leen ko acha mystique bi ngeen am seen serigne ci ngeen tag way way dimbali leen ñu seen serigne si ñu fexe ba pale si ñeeyee am jamm comme am ngeen mystique yeen seen serigne su ñaman lepp bismillah adduna bi ni ko Ousmane Dramé di waxee loolu maanaam ku man sa morom duma la il faut ngeen xam loolu philosophie bi ngeen am moo baaxul mooy philosophie ñun ñëpp benn lañu philosophie dañu war a bëggante philosophie jàmm philosophie kenn wutu rey mais ah kenn wutu rey ah ñun duñu rey kenn mais ñun ñu ngi ñu rey bés bu nekk <laughs> philosophie nit ki boo ko reyee da ngay dee tàbbi safara waaye c'est vrai soo ko reyee ki sa tey bakkan da ngay da ngay tàbbi safara nit ki boo ko reyee ki ne rey gu la neex da ngay tàbbi safara waaye ki la bëgg a rey ki la bëgg rey boo ko jekkoo boo ko reyee kooku doo tàbbi safara de dafa am rey ak rey li bëgg rey bëgg laa fàggagal boo ko jekkoo ba ko kooku moom doo tàbbi safara tàbbi safara du noonu ni dafa am ay condition l'homme africain la nègre dafa ñëw dans la dans la vie pensant que la vie est morale ñun dañu bëgg a moraliser les rapports humains dañu bëgg ñun dañu yaakaar nit ñi dañu war a bëggante ay frères lañu loolu c'est bien loolu c'est l'idéal loolu mooy li war a am li war a am mooy nit wut a rey nit li war am mooy nit wut a tooñ nit li war a am mooy li nekk ci àdduna bi war nañ ko séddoo ba kenn ku ci nekk li nga ci war a am nga am ko ci kenn du yéeg ci kaw kenn ñu séddoo respecté bokk ndaj bokk baay bi liggéey sénégalais liggéey ba kenn ku ci nekk li man loolu mooy li war a am loolu mooy li nga xam ne mooy réer bi mooy projet bi mais li war a am bokkul ak li am yéen nag sénégalais yi fu ñu leen fekk yéen a ngi ngoy ci li waroon a am ci loolu di xëcc xët xëtt guddeeg bëccëg man nekkuma ci li waroon am man maa ngi ci li am man li am maanaam lii xew bus bu nekk ci loolu lay dund man ci réalité yi man foofu laa nekk man nekkuma ci seen gént yi seen rêve yi naan lii ma waroon a am nit lii kërek loolu idéal la loolu c'est yéen da ngeen di gént parce que li ngeen bëgg mu war a am pour mu mën a sotti il faut que ngeen nekk ci li am li am mooy rayante fii ko man sama doom duma loolu moo am dañ ñoo fekk suñuy maam yi ñuy bay gerte ki takk suñuy di di di di di di ngemb ñu tubaab yi taal seen yu gaal di wëndilu ba ak suñu dëkk fekk suñu maam yi di ngemboo ko fecce ko yu kenn ñu takk leen bañ na kodd gétt defen géttu ak coggal di leen jaay du yóbbu Amérique am ci milliards yi milliards xaalis bu dul jeex tey xaalis boobu ñu ñu rawee woon xaalis bi ñu rawee tey alal yi ñu rawee tey lu ci bari mi ngi jóge ci jaayum njaam fekk suñu maam yi di fecc ko naan fondé ko di ngemboo ko bëree ko yooyu yëguñu lu xew yaakaar ne àdduna bi ci seen foofu la yem tubaab yi ñëw fekk si leen ci seen foofu naan fondé ga ak fecc ga ak ngemb ya takk leen bañ ne ko du yóbbu leen ñu leen béyi ak ak ak ak ak ak ak ak salade ak ak ak oui lii baaxul oui jaay nit commerce lañ ko defoon commerce commerce business international mooy commerce bi gën a rëy ci commerce boobu borom yëpp ci lañu amee atal tubaab bi fii tey seen doom yi ba léegi ay milliardaire la ci lañ ko jëlee woon jàpp ni takk ba ne ko jaay comme ni nga jaayee coggalu xar bañ demee ba gis ne lii jaaduwul fekk daaju ci ba am ci ay milliards milliards nag ñu doog nag ci bureau yi nag daan léegi nag dañuy réunion dëgg nit nag du jaay maanaam ne du ñun nag ay nit lañ nekk ay nit yu mat amuñu xel ñoom nègre yi dañoo xaw a waye di seen xel yi parce que yëguñu lu xew xam dara waaye nag ay mbindeef lañ nag seen xel yi dafa suufee nañ bàyyi lii tubaab bi d'accord na waaw léegi nañu nañu bàyyi njaayum jaam waaye fekk na moom ba ñu daaju ci dañoom dañuy dañuy dugg ci mbir duñ ci xool moral dem ci ba daaju ci ba am ci alal ba ne kekk nga xam ne mënatul yónnee puus nag ñu soog a bind nag loi ne lii amatul nañ def ci leneen tubaab bi ñoom loolu la ñuy def dégg ngeen de tubaab bi doom dañuy daaj ba noppi nag daal di daal di légiférer ni lii baaxul kon il faut que ngeen sadik am une compréhension froide de comment évolue le monde àdduna bi rapport de force la matu doxe reyante xeet guerre moo indi diplomatie moo indi armée moo indi lépp ku ci amul diplomatie bu baax amoo armée amoo puissance économique bay boo nga taxaw na la gas sa bàmmeel taxaw di xaat doole jooju moom lañ jàppee suñu maam yi jaay Amérique doole jooju moom lañ jëwee jàpp Serigne tuubaa téye ko résidence surveillée par force defu leen dara de dara la leen deful gisuma fu ñu bindee ñoom tubaab bi ne Serigne Touba def na leen lii lu gis mboola mu ko topp ñu am njort ci moom na day waajal xeex képp ndax xeexoon nañu ak El xeex nañu ak Cheikh Amadou Cheikhou xeex nañu ak Maba Jaxu xeex nañu ak Lat Joor xeex nañu jàpp ne Sëñ Tuubaa day waajal xeex képp lañ ko jàppee de ci ko ay mbokkam taxali ko yëpp pendant 32 ans xaw ma 33 ans dundam yëpp bi di ko surveiller amatul liberté doole lañ ko teg doole képp te Sëñ Tuubaa mi yéen ne ngeen man na lu ne am na lu ne xam na lu ne moom Sëriñ Tuubaa mi bu ma leen déggee ngeen wax ay waxam dama naan xanaa boo ko lee Sëriñ Tuubaa mi tubaab bi téye woon xanaa Sëriñ Tuubaa moom ngeen di wax gis ngeen yéen da màqaama yi ngeen koy jox daraja yëpp teewul mi ngi won ci loxo tubaab bi tubaab bi ngeen soufel tubaab bi ngeen xamne mom jappé wu leen ko dara mom mo téye seen ci ngeen jox dara je yépp tubaab be koy wax jógal mu jóg togal mu tok ngi xamne yàlla moy yàlla moy hakim kon yefi yi doole la doole tax ci kaw doole lu tubaab bi téye Cheikh Ahmadou Bamba de 1895 ba 1927 mu nekk ci loxo tubaab bi doole dong la ko tek du mystique du dara sëñ bi ngeen na dafa am mystique day dem arasaka ñëw moo xam yàlla mooy li yeewante bi li may dégg yëpp ngeen koy wax ci moom tubaab bi moom demul aras demul fenn mi ngi toog fi mu toog yor ab soxam di surveiller sëñ bi du génn du dem loolu nag am njàngat lañ ci war def ñun jàngat bu rëy ubbi suñu xel jàng ku ci amul doole daañu la noot nappaaje la tooñ la rey la suul la lekk sa alal doon na say jeeg tubaab dañ lay rey nangu sa alal donn say jéeg jéeg yi ngay korkor dañ koy donn ci sa kaw dox seen dox ku ci jógul uti doole da nga xam sa yoon newul man loolu mooy sama philosophie moo sama wax du neex nekkuma fi pour leen raaya ah, leen wax leen neex ah di laayee fi leen wax leen neex ngeen tàcc wóoyi ak kenn ton yooyu taxul man amu jot kooku mag ñu baax ñi ngeen di wax ñëpp bi fi tubaab bi nekkee kenn daawul yëngatu te neexul tubaab bi fooy dem da ngay demander autorisation mu autorise tubaab bi mo lay koy parce que te tegu ko fen tubaab bi de ci doole la ko teg doole kep amna doole. kon doole lu am solo la ci duntu doole lu am solo la mystique de jege yalla ak nitu yalla lak man waliyu lak may dem aras ñew ak man ma jege yonantu beeg yalla xamal na ma léegi yalla wax na ma yooyu yëpp c'est bien waye bo jógee na ma ngi dem ci wanag bi tubaab bi mo lay autoriser bu la boo autorisé doo dem de léegi mën nga dem aras ñew waye mënoo génn kër gi te bi jox lu ki ndigal kon doole mooy dëgg wax gi du ne mais loolu maam li ma wax moo am uti nañu uti doole nañu àndandoo bokk ñun ñëpp ndey ak baay sans xajja nii seen jël suñuy ay tareex rek ay salafiste ki ay sunna ki ay euh, murite ki tijaan loolu man contre ko kenn ku nekk na nga nekk la nga nekk waaye nañu yéeg nag nañu jël loolu ba noppi nag bañ koo def mu nekk lu ñuy xàjjale waaye loolu war ñoo mën a boole ba ñu doxal suñu sénégalais ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais kenn ku ci nekk la mu nekk nga nekk ko mais du tee ñu war a mën a kenn ku la nga nekk gëm ko di ko jéem a saxal ko jéem a yëkkati lay tax mu mucc mooy doole rek bu amul doole bis bu tubaab bi dugaatee fii yéen ñëpp lay jàpp jàmm lay a mucc tijaan bi a mucc yéen ñëpp seen mucc lépp mën a mucc lay tax a am mooy àndandoo rek bu doon ko deful ba tubaab bi duggaat ci réew mi da nga xam ne lépp dëgg la mais loolu mooy la Elhadji Malick bi muy dem tuub bi muy dem bi muy dem Màkka tubaab bee ko jox autorisation mu dem maam Cheikh Anta bi muy dem Gambie tubaab bee ko autorisé mu dem tubaab bi jàpp na ko fi yóbbu ko Mali lu ko fa ci benn histoire boo xam ne xëy na tey loolu du objet bi ak yenn yenn en tout cas mën naa leen ci limal lu bare bare bare bare te tubaab bi tegu ko fenn lu jaay doole képp noggatu képp. te da ko am dafa uti doole ba xam ne àdduna bi moom France su bëggee dund il faut que mu am doole loolu nag mooy continuer ba léegi gis nga ni ñëwee Orange autoroute à péage euh, Total euh, Auchan ba léegi jaay doole googu moo fi nekk ba léegi armée française nga ci biir réew mi kenn du sa kot doole rek ngeen nekk di photo soo ko gàmmoo ko màggale ko lu ne ngeen dugg ci guddeeg bëccëg toju leen fenn armée française jii bu Dakar doon tàkk armée française joxe sapeur pompier yu koy fay amu leen sapeur pompier yu baax hôpital hôpital principal armée française jiyee ko moom ak yenn yeneen yoo xam naa ci ñëw ba léegi kon maa ngi leen di bàyyi ndax dama am yu ma war a définir mën naa am fii ngoon su ma féexee rek dikkaat ci gën ko yaatal ci wàll woowu am na lu ma ci tàmbali sax waaye dinaa ko àggale dinaa ko àggale kon fii ak ngoon incha allah jeexal leen jëf merci.